di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak ko may soxna jaara barki Sëñ Tuubaa te jéema roy ñi fi raawoon ci tagg maam jaara buso dëj roy ñi fi raawoon ci tagg maam ci tagg maam jaara buso dëj ci tagg maam jaara so di ci tagg maam jaara buso di ci tagg maam jaara bismil ilaa ima joog sant waxte ma joog da jemar ñi wiraawoon da ci tagg maam jaara buso bis ima joog man te ma jëggu man rëy firaawoon ci taggu maam jaan bu sonda xam tey lu fi jag na ne ngir ay ngëneel yu ko buur jox mooy maam jaara buza i ma man te ma man rëy ñi firaawoon ci taggu maam jaan busta tànnee fu seydina aliyun calali ma la ba jukku xayral wara ci mbokku maam jaara busa imma jogu mantunda te ma jagu manera ñi fi raawoon busu siriñ busu beki asu ñoom ñoo ko la mu doon di ñaari wajur yu tedd ya ñel ko moom jaara busa i ma jógu mant ndax te ma jag ma ñi fi ci tëgg maam jaara musi sagal na lislaam ji sagal na der bu ñuul ca borom gëm nañu gépp jigéen mosut ko moom jaara busa musul ila i ma jóg de sant te ma jaguma dero ñi firaawoon ci tagg maam jaara toppoon na yàlla gi ci jaamu topp ba tuddu jaara ëttu laay nan ko maam jaara busa e ma joguman te ma jaguma dero ñi firaawoon bu su dëggal juubal ñu kimer way yëf tey yaa muñ ku dip jullit li war mooy reji maam jaara busa mu jekki mbire ne yaa muñe sargal la na ma dëggal jubal jekki mbir way yëf tey yaa tuddi muñ dip li la war mooy reji maam jaara busa jëkki mbire yaa tuddi muñe bu su dëggal jubal jëkki mbir wayaf te yaa tuddi muñ di julli di li war mooy rëji maam jaara bu sa dëgg jëkki mbire yaa tuddi muñe li la war mooy acca toppoon na yàlla ak yoneen ci jaamu topp ndigal bu tudd jëng rëtulaaye dan ko maam jaara ba jekki mbire yaatu di muñe la war mooy wasa toppoon na maamoor gàttu na tànk daa ko teral lu masa am joxo jaajëf soxna maam jaara bu sa jekki mbireya yaa tuddi muñee li la war mooy acca toppoon na maamoor gàttu na tànk daa ko teral lu ma sa am jox ko jaajëf soxna maam jaara busa jëkk mbire yaa tuddi mu ñee li la war mooy bu sukkur ga dada set aaye donga yay ma ñax di rakkaaju naa tey jee kenn xiif jaara busa sagal jugal jekki mbir jekki mbire mooy ray ci maam jaara wu gàtt wa fees dee lëg ki may lu ma am yaa am ci dun bi maam jaara bu jekki mbire yaa tuddi mu ñee mooy bu so simal na bépp salaf te it xalafu du ko dab moo maaguma te du moomoon góor ñi maam jaara bus dëggal jubal jekki mbire yaa tuddi mu ñeel li la mooy roy ci maam jaara buso ci jigéen nanu tuub ngir yàlla ruus nu ci bar képp dëggandoom ba mu rus ko ko di maam jaara ba jëkki mbire mu ñeel li la mooy roy ci maam jaara ci jikkoom ak yi di roy fa mu jaar ngir yàlla waay jéy nga neelam barke maam jaara bus jekki mbire yaa tuddi mu ñeel la war mooy bu soxad na xifun laa na naddu laaw raafixuna dal xu daawatooxa imaami maam jaara bus dëggal jubal jékki mbir jékki mbire yaa tuddi mooy roy ci maam jaara busa salli ala musafa xayril wara sanadi wadda bi jaddati naal xonooni maam jaara busa jékki mbire yaa tuddi muñe li la war mooy بسسل لخلا مصطفى خير الورى سندي ورب جدتنا الخنون مام جار بس دغل jekki mbir jekki mbire yaatu di muñe li la war mooy roy ci maam jaara bus yal na yàgg lool te am jàmm bakki Sëriñ Tuubaa yéen jëf di kunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna nga àddina wóor na yaa jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara